jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax bàkk ba jibati na générique bi tàmbali na ñoo fii ci wasaare euh, ànd kook ay xale yoo xamante ni xale yu làmb bàyyi xel la ndax ñoom ñaar ñi mbokk yi ma dalal ku ci nekk ren bëre nga ba am ci ndam sama gauche maa ngi ci am ki nga xamante ne mooy Ardo sama droite ngi ci am ki nga xamante ni mooy Réparé Ardo moo mujjee bëre ki nga xamante ni mooy caat fa yàlla dogal mu am ci ndam Réparé bëre na ki nga xamante ni mooy téq jël yàlla dogal mu ci ndam nag mbokk yi làmb Euh, dafa bëgg seen combat amateurs yi dañ koy waxtaanee fu nekk moo tax tey ma dalal leen fi bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb bëgg waxtaan ñoom ci seen carrière waxtaan ak ñoom fi làmb tollu jamono ji ndax ku ne xam na ne am na làmb yoo xamante ne waroon naa am yàlla dogal na wala boo corona bi dogal na amul ndax kii di Repaay magam waroon na cee bëre biñ nee samedi dimanche bi maar la waroon na bëre waaye corona bi ñëw na puus lépp boo tax na tey nag bëgg na leen dalal waxtaan ak ñoom ci làmb waxtaan ñoom li nga xamante ni mooy seen carrière fi mu jëm Repaay nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay ginnaaw baat onze billahi min seetaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bañ sant yàlla julli sant bi di sant suñu ñaari waajur naan jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf Serigne Saliou sama yaakaar tey ëllëg jërëjëf di Serigne Saliou sama yaakaar tey ëllëg xam nga maa lay nuyu di la fay di nuyu ñi teew ñëpp sa cameraman xam nga di nuyu sama mbokk mbër Ardo waaw di siyaar ñëpp daal di sant ñëpp aussi. ana waa Géej waay. yee ñoo ngi fa. ñoo ngi ci jàmm bu baax ñoo ngi ci jàmm bu baax. Ardo nuyu naa la. waaw di la fay Ouzin di wax onze billah bismillah inna waani yàllaaw sant nañ borom bi julli ci yeneen tëm bi tëdd bi sant borom Touba ba mu ñu booleeg Baye Aziz ba léegi lépp lu bon dañu koo bàyyi yàlla nañ ci sax beeg rek ñu ñuy yóbbu Touba tuubi ruubi naa jàpp nañ la faal dootuñu la bàyyi yaa digal ñu topp bamba ba seytaane bu ñu koy yàqal ñu bala fa yaay suñu ndey di suñu baay buñ la tooñee rek ne la baal ñu faal yàlla tere xel xalaatul di la tooñ kon mu weere xanaa kay jëfe ndigal bàyyi tere buñ ko defee doo ñu mere cant ak sikar moom nga ñu digal wante fecc bi da nga koy tere di wax jërëjëf si Serigne Touba jaaraam maam Cheikh am Fall Lamp di nuyu axlu làmb gi yëpp daal di rafet lu jotaay bi di leen nuyu bu baax a baax a baax ak internet wasaare làmb yëpp. Hmm. ñu ngi sant ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. ndox mi baax na ndox mi bàyyi na. waaw mënul ñàkk gaa yi ko doon ñaan ah. waaw. bi def na si ay dog yu baax daal kon dañ koy sante yàlla rek ab jullit moom lu ñëw rek da koy sante suñu borom daal. mais boobaak léegi bi nga ba ba léegi kenn déggaatu la kenn gisu la ci lan nga nekk. waaw nekk si loxo gaa yi rek xam nga man buñ nee Ardo yaatu na ko am lu nekk si ginnaawam. ñooñu ñoo naa ma defal nii defal nii defal nii si loolu laa nekkoon rek waaw. mais turu Ardo bi lan moo ko andi parce que Ardo man xamuma sax lan lay tekki. waaw sama benn grand moo ma ko sama ñaari grand ñoo ma ko tuddee muy Xaadim Amar ak Omar Ndiaye hmm. ndax maa ngi joxe woon murit ñun moom suñu waa kër sama papa si boppam dafa léppam sëñ Saaliw la. Hmm. man tamit ma nekk ndaw. amoon yëg-yëg boobu xër ci trop ñu daal teg murit ñu ne ma non non loolu dafa xaw a kii quoi. dafa diis waaw dafa diis ba tax na. léegi si jour euh, sama première signature mbapat ñu ma waroon jox ndeysaan building après si si jour boobu noonu tàng tàng bi war a dem signature yi ñu ne lan la ñuy bind. ma ne murit grand bi woo ma ak Xaadim Amar ak Omar Ndiaye woo ma ne ma tuddee nañ la CNG murit dafa diis tuddee nañ la CNG ma siisu quoi. yàgg ñu ne ma tuddee nañ la ardo ak nit ñi nuñ bëree noonu ñu ne ma non CNG mooy loolu nañ la tuddee ardo mais après tur bi dafa delluwaat boroom rek waaw ndax man pël laa te ku xam ardo ci pël histoire la waaw silaamaka ardo puloori xamara yaare giro seras mooy puloori xamala yaare man maay silaamaka ardo waaw histoire la xama yàlla dina def daal ngeen daje ngeen gën see yaatal moom gën a maîtriser loolu dëgg la mais suñu staru maam la quoi. ok kañ nga dugg ci làmb parce que ñu gis ne xale nga mais boobaa ak léegi yaa ngi def ay jéego kañ nga dugg ci làmb. làmb bu dee. bëree dóor. bëree dóor quoi. Hmm. bëree dóor j'espère que 2016 2017. 2016 2017 ak Bou Siteu. yaa Bou Siteu. Fallou Ndiaye moo ko que defe naa ni combat yi xaw na bàyyi tuuti. ma ñëw ci réparé tout réparé mm-hmm. bi fan la jógee réparé ci mécanicien lañ koy xamee mécanicien auto mécanicien vélo mécanicien moto fan la tur bi jógee. waa tur bi sama garant sama garant moo ko tuddoon waaw sama garant moo ko tuddoon avant réparé bi Ousou laa ñu ko tudd quoi. Ousou Bane. man musuma pratiquer beneen sport bu dul ñu ngi juddoo ba léegi sport làmb rek. du ma footballuma basketuma simbu ma def ma daal làmb rek làmb sa pratiquer. daa am ñu fi simbu fii. non non non même pas comme xam comme xam nga ku nekk dina am jaar jaar quoi. man loolu laa mës a pratiquer. mais lan moo la xiir ci bëre. parce que gis nañ sa mag sa ñëw nga fekk ko ci làmb. lan moo la hmm. ci làmb. waaye nag euh, loolu il faut ma leeral si. ñu bëri jàpp nañ sama mag moom moo tax ma bëgg làmb ah ah. su ma demee bëgg làmb dem bay takk ngër ngemb du moins moom moo tax ma bëgg làmb moom moo doon bëre xam nga tollu ni mu ma gis ni muy def mu neex mu tuddee koon sama boobu comprendre nga di bëre ci mbabar di fondu comprendre nga dem géej dama dem ba sama tur sax pour ñu jaar si problème aussi ban lañ ma doon wooyee quoi. léegi par la suite xam nga sama grand mbër la woon on voyagé na tudd réparé sama yaay moo ko tuddee woon moom mécanicien la woon quoi sama yaay moo ko tuddee woon bëri na si ay quelques combats. da mhm. xam léegi par mu voyagé man bëreeguma arène ma ne pourquoi pas tur bi di naax saay quoi xam nga jël tur bi ko. loolu moo waral ma jël tur réparé bi quoi. mais kañ nga dugg si ci làmb lutte avec frappe. 2018 le 6 août. 2018 kon 3 ans nga ci def. waaw ah, le 6 2018 laa dugg ci làmb. Hmm. Ah. ñaata combat nga def. actuellement maa ngi 6 combats 5 victoire benn défaite. benn défaite. jàmbaar nga de. ñaata combat nga Ardo. waaw man am na bi ma bi ma mujjee bëri mooy sama septième combat. septième combat. Mm-hmm. ñaata victoire. am na cinq victoire. cinq victoires non non six benn défaite waaw. Ah. kon dafa mel ni ñaari palmarès xaw na tolloo de. Hmm, loolu ñu gis. ku ci nekk benn défaite la am de wala réparé. xam na boo xam promesse am naa xam suma ah. gis nañu bari na coow metti woon na. combat bi koy dox yomboon na. combat na xam nga boo féetewoo fii lañ toll. Hmm. maanaam yoroo sa kàddu daal xam nga doo xam foofu nu muy demee mais. yëkkatil micro bi tuuti. bu ma bu ma bu ma fàttalikoo Omar Saliou. Hmm. Omar Saliou moom moo si dox ay jéego daal affiche bi moom moo ko defoon dégg naa dugal ko si benn groupe gars yi di si wax xam nga tamit lu ñor taab bi la mu tombeek askan bi ñëpp bëgg ko les gars di si waxtaan si lañ ma envoyé coow lu si gars yi di waxtaan di ma ko envoyé waat sama whatsapp mooy déglu. xam ne gars yi bëgg nañ ko man tamit may préparé moom tamit mi ngi préparé bëgg na mu am mais estafam daa am lu ñu doon laaj ci xéewal man tamit bëgg naa mu am mais si moom la doon dépendre. Mm-hmm. waaw muy préparé may préparé ba yàlla def ab Lékrand taxawal ko yàlla may man dam si kaw ma koy mm-hmm. sante suñu borom. mais combat bi ñu mu nekkoon combat boo yàggoon na xeex bi bari woon na te combat bi na. ñu bari dañ na woon Thiat Fora moo la ëpp doole moo la ëpp maas mais bi ngeen ñëwee ba simee ñu ci bari xam nañ ne yi neexoon combat bi lan moo taxoon mu metti waaw euh, amaana xeebante mën na indi loolu quoi. yaa ko xeeboon wala moom moo la moom moom xeeb na ma. xeeboon na la moom. moom doon na koo xam ne gis naa ne daf ma xeeboon ko làmb tamit daf ma xeeboon làmb day ñëwee noonu làmb chaque jour làmb am na ku muy foral si làmb bu ñu ko nangoo ko chaque jour am na ku làmb di foral loolu lañ naan favori. dañ ko hmm. joxoon favori quoi làmb moo ko faraloon. mais man xam naa sama bopp xam naa ñi ma àndal ñi ma àndal tamit xam nañ ma waaw man si liñ ma jaarale laa jaar yàlla may ma ndam si kawam. mais ñu gis chaque jour bu ngeen bu ngeen xeexee sa loxo simmee ku nga daw génn ñu ci bari na booy bi lii li mu koy dal ci làmb dafa bari dafa faju ba pare xeex bi metti woon nga doon xeexee benn loxo est-ce que amul amul ay difficulté yu mu la dafa andil ci biir làmb ci gàllankoor. waaw mënut ñàkk mënut ñàkk xam nga loxo buy simeeku dégg sax si ay waxam. maa ngi koy encouragé bu baax. kan ñaanal yàlla mu am mu réussir si li mu opté quoi muy làmb ñun ñëpp asamaan la ñun ñëpp xañ nañ si. Mm-hmm. maa koy encouragé bu baax mais dégg naa ko muy wax ni man damay tàppale. Mm-hmm. mais maa ngi koy ñaanal wér yàlla bu ko loolu dal ndax ku mu dal rek moo ko xam quoi waaw ñun nag ñu ngi faju ñu ngi tamit ñaan yàlla mu defal ñu wér ndax wax dëgg fa yàlla. ku nekk wér ngay ñaan quoi. Mm-hmm. waaw man ñaan suñu borom mais man mi mu dal doon si biir géew bi xam naa bu baax li ma doon sentir amaana mënuma ko woon yëg ndax li nekk sama ginnaaw moom ëpp doole foofu. ba foofu moom du ma gis dara lu maanaam li ma digganteeg gars yi ma defal ko parce que ñoom li ñu warul man yëpp def nañ ko parcelle golf. mais combat bi yàggaay li ak métti bi xaaroon nga ko ci. non ankay parce que man moom combattant laa quoi combattant laa waaw combattant la yooyu awma si problème pour dire beeg yooyu man am na loo xam ne si mbirum suñu borom la loo xam ne ñëwagul xam nga mënoo ne day gaaw mënoo day yéex moo tax toujours bu may dem damay pare lépp quoi. dogal nga am ci waaw ba mu ba mu ba mu guddee tamit bettu ma bettu woon parce que xam naa ni moom daf ma xeeb te man xam naa ne du si génnee noonu waaw. parce que ñu gis kele bi mu koy def dem na ba ñu ba ñu ba ne daanu nga. nga samp si benn loxo yaakaar naa tuur ko wala jàllale. non dama koy yokku rek. dama koy yokk déplacement wéeru dama ko wéeru wéer son poids daal di déplacé ndax xam naa ne loolu muy def comme des fois di nga yegg mbër dina la yegg fenn ngeen mbot nga mbot ko mbotu tàqali ko. Mhm. waaw moom li mu doon def pour tàqale ñu la mais baax pour daan ma quoi parce que ins boobu xam naa ne dafa étouffé. dafa sonn dafa sonn gis naa loolu ci moom man boo gisee maa ngi cokkaas mais gëwuma ko ndax sama loxo mi ngi metti te tamit maa ngi bëre waaleeg loolu bañ naa tamit mu amaat troisième fois ins boobu noonu mu génn génnaat day gën a métti rek bi génn di génn day gën a métti looloo tax tamit damay cokkaas rek damay def dara daal ibbil ko bëre bi yëpp nag damay def dara bëgg tamit moom mu def dara ndax xam naa ni day def erreur day def erreur mënut ñàkk quoi. parce que dama koy gis chaque jour si ay combat am. kon avant combat bi taxaw jot nga ko seetaan. waaw loolu mënut ñàkk ñun ñëpp dañuy seetaanante. Hmm. làmb la ñëpp. ku nekk yaa ngeen génn sa morom ci benn ruq. baax na ma ñëw ci réparé. sa combat yaag tiiq bi mu taxawee ngeen daje arène national ba coow li bàyyi woon na mayu la la dara. mayu la dem sax ba benn instant da ngaa da ngaa énervé nanguutuloo wax. sa diggante yow ak moom lan la woon mu ñëw sëf la wax ji yëpp. non combat boobu man bëgguma soon wax énervé wu ci benn ko nag. non non si di ci wax parce que dañoo gis combat bi. signature bi non comme signature ba. énervé wu ma man maa wax ju bari sama diggante ak moom. ah mais ndax wax ji su bari woon rek su bari woon. di ngeen di ngeen xas-xas looy. non wax ji su bari woon dana xam fu ma jëm. loolaa te loolaa si doon bañ xam fu ma jëm. sama première man ak moom arrêté na sax xamoon na ni koy daane. bi ngeen di dem signature. waaw ah. wala boog présenté mooy bu ñuy njëkk a présenté wu arène nationale. xam naa ni ma koy daane. xanaa avant ngaa dem da ngaa jaar ci sëriñ bi mu tey kii mbër la man mbër la. Mhm. moom tey su ma gisee war na xam fan ma sama faible su ma ko gisee war na xam fan may faible la. automatiquement maa ngi la gis nga ne ko danga tegle. waaw ah. da jël ay doom nangam nangam. Ah. non. ñu bàyyi dañ ne woon ci défaite bi nga jógee. Hmm. moo tax ngay wër nooy moo tax nga dem ci déq. combat boobu ba ma ko mu promoteur waxee dam na ko combat boobu su ma sañoon nga seetal ma keneen ndax su ma ko daanee dañ naan xamoon naa ko combat tey ngay dee laa bëgg xam promoteur bi insisté insisté si xam nga léegi mu jigéen mu waxtaan ak sama staff jubóog ñoom di bëri te man ngeen la am ngeen boo bëri ñëwee xam nga waxtaan ak ñoom jooju ko ko man loolu baax na. la am bëri ji mais bi nga ñëwee ngeen ña yéen ñaa ngeen jàkkaarloo ak par rapport ni nga bëggee woon ku ko ku ko sut niveau wala ku ko ëpp doole. Hmm. bi nga ñëwee ngeen wax yéen ñaa bi nga dëppee lan naka nga xalaat. comme ba ma dëppee. bi nga jógee scientifique ba dem par rapport wax jëm la andil foofu ci ci scientifique. Hmm. non man billaahi combat bu liiwuma ci benn côté nag franchement pare dépassé wu ma na. Hmm. dépassé wu ma ndax man moom. man li ma gëmoon quoi. li ma gëmoon ak li ma entraîné man moom chaque jour ko jëfee dama entraîné. Hmm. combat ñàkk combat man xam naa ni su ma ko jàppee te xamu naa ne làmb ji benn song lay doon amul jàppaat jàppaat. fan nga ko tegoon ci ñàkk mën a bëreem wala ci doole. non non waxuma la mënul bari de xam nga tey nit ki chaque jour sa gëm-gëm rek ngay am quoi sa gëm-gëm ngay am man gëm naa ni suma ko téye làmb ji jeex te ku dul moom sax fu ma ko àgg su fa àggee làmb ji jeex ku dul moom. mais nga ñëw ngeen lewaatoo demee góor mu dóor la am na jot doo ko bu daal. non effectivement non làmb moom ku bañ <laughs> mais nga song ko ak mu jeex. ku boobu moo jeexal làmb ji. xamul tax ku beneen ñëwaat wala. non même pas tax ku bi jeexal làmb ji. moom sentir na ne dóor na mu kuufu daal moom sentir na loolu quoi. léegi automatiquement day bëgg a tegaat foofu loxoom automatiquement day bëgg a tegaat foofu loxoom te foofu ma koy tegaat nag moo dul baax ci moom. te soo xoolee fi mu ma dóor fa la ma bëggoon dóoraat. Mhm. Ah. nga daw paquet ko am léegi ba nga bëgg am ci ndam est-ce que ñoo ngi doxaat say combat. waaw ñoo ngi dox ay combat wax dëgg faa a dox ay combat ñoo ngi dox ay combat ay mbër bugg nañoo bëre ak man tamit te lépp doole sant suñu borom rek na def ma fi dara aussi takk ngeen bu dëgër sax moom su ma demee ba ay promoteur di ma waat pour baax wala ay mbër di bëgg di bëre man dama si sant yàlla bu baax baax a baax ndax mënu ma dara xaw ma dara. ñu sant dama gis dama gis benn vidéo sa diggante ak Liss Ndiago. Hmm. nga wàcc moto bi xataraay foofu. non vidéo boobu man dañ ma daa ñu ma seet si quoi. ñoom ñoo la seet si. non benn site internet bu ma seet si woon. Hmm. proposé ma. comprendre limal ma quatre adversaires. Hmm. limal ma Liss Ndiago Thiatou Fora arrom yi toog ak buusita mm-hmm. comprendre mm-hmm. man leen li ngeen di jël buusita tegee ko côté mm-hmm. ndax maa ngi moom ñoo bokk géejawaay waaye ñeneen si si maa leen man yow man maa wax loolu xam nga wax dafa neex nga wax waxaat man maa waxoon loolu man ñeneen si ñëpp maa leen mën comprendre léegi ñu teg si deux ou trois jours may euh, dem Dakar yore moto dem Pikine am ku ma taxaw xam mu fekk ma foofu. moom fekk moom fekk ma foofu wax xam naa li nga ma li ma wax maa ko ñun ay détails yu ngeen xamul comprendre nga ma soo xam nga nii ak su ma ñëwee naa jël avance bi quoi benn morom bu may ragal ak bu may moom bàyyi ma ko xel sax. Bouzy te ndaanaan la de kii kon. Euh, Liss Ndiago ñëpp ay ñëpp ay ndaanaan ji amul ku fi yaafuus. Hmm, loolu amul amul ku ñëpp ay ndaanaan lañ ku lu fadrin waaye wallaahi lazim bàyyi ma ko sa xel. billaa walaay bàyyi ko sa xel. moo déggee lim mu wax ne ñi ci des ñëpp moo leen mën te ñi ci des yow ci nga bokk. des des. des des koy jox xar yi quoi. desit dañ koy jox xar man bokkuma si ñu des. man damaa occupé ainsi. non dama wañ ba ñi si des limal ko tur turu mbëre xam nga waxuma ñi si des ñëpp. Ah. dama ne ko caatu fora maa ko mën na sant yàlla bu mu ànd ak Siteu ndax Siteu moo tax ñu xam ko ndax li muy taxaw si kanam di ma waxee mm. ni ma ko waxee woon rek laa ko waxaatee. comprendre mu waxaan ma Ardo ma ne ko maa ko mën. mi ne ci kaw si loo ko teg ma ko sama premier combat arène man ak moom la woon. Assise ah, doy na ma seede muy manager am ma ñëw CNG ñu bañ combat boobu si ñu utalee keneen. lan moo tax ñu non non manager am moo bañ. comprendre nga waaw ménagère moom mu bañ te li tax mu bañ mënu ma ko see balaame quoi boppam la ak staffam ndax ndax mbër li nekk si ginnaaw day bari ko hmm. comprendre léegi si ma jox euh, ki ma bokkal koñ ma moom daan ko comprendre deuxième combat bi ñu waxaan ma ko man leen man waaw c'est la même chose man ba tey fi ma nekk laa nekk mënumaa bañ kenn ci làmb comprendre combat bi yàquwaat euh, ñu joxaan ma benn boobu dëkk nekk igri bâc saras boo bëlee nag promoteur woo ma mu Ardo comprendre nga nit rek ñooy tey dox Ardo waaye man tey si kaw laa bëgg a bëree. naka gisee loolu Ardo sa premier combat yow moom deuxième combat am ñu waxaat ko ko est-ce que boobu message yaa ngi doon ñëw ci yow. waaw non moom ay message am du ma du ma ump waa ndax amaana euh, du c'est pas la première fois que ñuy daje si plateau. Hmm. bii defe naa mooy deuxième fois bi. kon moom bu ma xamul sax man xam naa ko. non xam naa la bu baax. waaw ah, kon moom comme que xam na ma xamante nañ la ñuy wax. sëñ Fallou quoi loolu méttiwul bu doon mooy promoteur ah j' espère que moom du yoot bu doon mooy promoteur du ma yoot kon loolu mu ngi ci loxo promoteur yi. sa diggante yow ak moom. Mhm. xaalis bu bëri nga ci bëgg. wala da nga wala lan la. xaalis mais xaalis ñëpp ko bëgg. moo ne <laughs> ah, sa diggante yow ak moom. non sama digganteeg moom man ak moom. Hmm. non du man maa ci nekk bu dee gars yi bëgg nañ ko rek. non groupe làmb yi moom foo dem moom la ñuy waxtaanee. foo dem. est moom la ñuy waxtaanee réparé Ardo. est-ce que du mooy waxtaan moo koy waxtaanee. <laughs> man mii. mais bu dee bu dee daal gis nga. comme li ma lay wax rek mbër wuy ma waaw non bul ne est-ce que moo koy waxtaanee. man non que bien man man xam naa ne bu baax bëgg nga làmb. déggoo ma de. man xam naa bu baax bëgg nga làmb ah, déglu ma man xam naa bu baax. waxtaan xamul ci neex trois fois laa la ko wax. dégg ma déglu mais man naa une fois une seule fois ma wax la ko. waaw boo ko bëggee benn. jàpp bëgg naa ko fukk laa. waaw man paa laa. Hmm? paa bu ndaw laa. te daa am ñu topp sama ginnaaw. non mbër loolu moom wax ju yàqu ñi nekk sama kanam. ak ñi nekk sama ginnaaw ñëpp barki sëñ Fallou Mbacke maa ngi leen di contrôler maa ngi leen di xool maa ngi xam bu baax a baax si la nag lan la ñuy dox. mbër. waaw mbër. ma waxal la ko. Hmm. man bu njëkk ba may doog a bëre. avance ba may doog a bëre. Mm-hmm. bokk nañ plateau man la jëlal avance bi. Mm-hmm. est que am dégg. Mm-hmm. boobu damay doog a bëre suma premier combat am na wala amul. voilà depuis boobu ba léegi amoo benn micro boo gis man jox leen arme. na waawal dëgg. waaye sa waaye moo question man la leen ñetti ñooñu nga may limal maa leen mën te li ma wax. mais say vocal say vocal indi transféré nañ ko. si yow ci yow su may bokkaan man moo wax ci yow. non non non dégg ma non non xam nga xamoo yow benn yoon benn yoon la am mos a wax ci yow. Mhm. loo xamante ni muy jox leen ma ko. deuxième fois sama signature man ak Teq jël muy wax ci yow man ko kooku amul lenn looy wax ci moom kooku dama koy nuyu en passage. am na wal amul. waaw maa ngi lay fay voilà waaye à loolu. ndaw nga may ndaw n'est-ce pas. Mhm. tey ñun ñoo mën a mayante xaalis. waaye tey xam nga ñun ñoo ngi xool loo xam lu ñuy jëmale kanam aussi yow yaa ngi xool lu la jëmale kanam. waaye tey actuellement ni amul benn mbindeef bu ma dékki micro man may wax loo xamante naan jox leen ma kii wala ku jox leen ma gaa xam nga ku ma tëkk ku ma tëkku man xam nga ku ma tëkku parcelle actuellement non de non ki tëkku parcelle laay wax man kii laa tëkku parcelle ko waaw man maa wax la Ousa 2 laa soxla ñu ne ci lan man ne sama mag li mu ko def laa ko bëgg a def sama mag li mu def parcelle laa bëgg def parcelle maanaam daal su ma déggee mooy yow doyaloo boo déedéet sama mag li mu def parcelle laa bëgg def parcelle muy ci mbapat bi mu daan ak ni mu ci. mais fi mu toll nii fi mu toll nii bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma jàmm woowoon maa ngi koy nuyu au passage ndax moo moo dox ci euh, Mamor bu Faas ak Cheikh Super jamono bu ma woowoon tey ne ma avance boobu damaa bëgg combat boobu damaa loo koy wax. non man ak yeneen promoteur yëpp nag. non man man ndaw laa comprendre nga. Mhm. te aussi. moom moo sama bopp am na lu ma moom sama cër am na loo xam ne ñee ko moom man xam dañ may takkal ngéem rek dama entraîné li ma sant dañuy dëkkante ba ba nga ne boo leen seetee combat bi taxaw nga seeti non man sama adversaire sa sama staff waaw kuñ d'accord man pare naa moom moo sama bopp quoi xam nga au passage euh, sama ménagère fa laa waroon jógee quoi maa ngi koy jaale di ko ñaanal yaayam dafa wàcc xam nga di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana ak mboolam jullit quoi amiin amiin eh. waaye man moom je suis pour tous les lutteurs. tey bu noonu avance Ardo ñu nga yóbbaale. déggoo ma de kuy doog a bëree ku doogul bëree ku am ay combat ak ku amul yëpp man je suis pour tout. Ardo sa combat yaa kii fan la tagee. non man du mu promoteur man li may seetaan lamb sax bëriwul. mais est-ce que mës nañ la woo moment bi bi nga bëree ba noppi na la réparé avance réparé. non gis nga man bu ma nee déedéet damay fen bu ma nee waaw tamit mën na am tamit ma xam nga lu tax as dafa occupé. dafa jafe jot jafewul noonu jot. mais tamit du mag la du tout le temps nga koy woo jëfaloo ko dara loo xam ne dafay war a concentré aussi yow temps xam nga dinañ déggante bu ñu déggante yaa ngi tane des fois mu woo ko mais li ñu ngi koy proposé yëpp mën ñoom moom bu la koy koy wax nii duñ fi duñ fi jóge waaw. mais repas dina ci bokk. mën na am mën na am. non néew dina ci bokk rek. man foog naa <laughs> ba tey ba tey ndax bëri na ay bëri na ay ay champion yu ñu wax bëri na ay champion yu ñu wax mais ñun tamit ñu ngi préparé daal ñu ngi préparé ñëpp ndax lu mu yàgg yàgg saison bi day tijji koi ndax kii dama koo dégg nee na pareegul pour génn parcelle li fa magam def moom lu fa bëgg a def. te xam naa nag doo seetaan mu jàpp sa doom nday daan ko ci xaw ma deux mil wala une minute. Ah. ñëw di la dëkk ngay delloo avance bi. non kii dëkkuma sax dëkkuma. dañoo boobu dafa mel ni ñoom ñoo ko andi woon de. dëkkuma dëkkuma sax parce que dañoo toll. Oh, dañoo li ma ko rawee si làmb bu dee bëri na bëriwul sax xaw man ndax xam sax maa ko raw man bi may bi muy wax nii laay soo a xam ne première combat moo nekkoon la la doon soog a bëree premier combat comme xamuñ am na lu ko yàlla may si làmb quoi ndax ñu koy dégg ba mu commencé ba léegi macha allah ñu ngi koy dégg mais ñun tamit nekk ñu parcelle di toog di xaar kenn. Mm-hmm. waaw ñun ay ndaw lañ dañoo war a dem jëli ji luñ moom yox la jëli ko bi solo la waaw ñun moom la ñuy doxee lépp fu ndam nekk dañ koy yox dem jëli ji ko waaw kon muy moom muy keneen ak keneen nañ pare te xam ne Ardo mu ngi ñëw quoi ànd ak waa Parcelles ànd ak waa Golf Sud waaw na ñëpp pare ñëpp. waaye naka gisee làmb moment bii mu toll. waa làmb ni ñu ko gisee lañ ko gisee rek ñu bari ñu ngi yuuxu di jooy mais man li ma wax rek laay doon wax ñi si kaw te wàcc ñi si kaw. Hmm. Ah, alaa kulli xaalim dañuy wàcc ndax yàlla mayuwul dara da ko abale ah mais mujjee puso mu réer la dañ ko war a jomm ndax ay africain lañ ay révolutionnaire lañ war a doon ay bañkat waaw muy ñëpp nguur mooy nguur gi nguuru Gris Bordeaux bi muy nguuru Macky Sall bi nañ rafetal ba buñ fi jógee ñu xam ne kat ñoo fi defoon li ak lii keneen ñëw eggali maanaam bu doon benn nit tey def lépp ah Fall kon kon njiit dootul amati ndax yonent bi gën di rek daa doyoon Muhammad sallallahu taala alayhi wa dafa doyoon quoi. Mm-hmm. mais la fekk moom jugee na fi kon kenn du fi des. waa keneen ku ñëw dafa war a def ba xam ne moom fii la yem ak yeneen mi ëpp na fii mais fii la yem mu jox keneen mu eggali quoi. su ma la déggee ngay wax ci njiit yi. Mm-hmm. ni Gris Bordeaux di doxalee wala boog lan moo la ci neexul ba nga ba nga tàmbalee ko ci njiit yi. waxuma ni am na du ma ne lépp neex na ma. Mm-hmm. mais dara neexuma ah le fait nga boole ay nit rek yombul waxuma lak làmb ak dawante bi ci nekk Gris Bordeaux bu demee ba décroché Balla Gaye Modou ak yeneen VIP yëpp benn jotaay loolu yombul. Hmm. loolu ku amul maanaam ku amul xol bu rafet. loolu mënoo ko quoi. parce que faaw nga wàcc jéem a wàccee sa bopp jéem a teg sa benn mbubu bi jëm sol beneen mbubu pour game loolu. mais ci biir game boobu hmm, am na loo xam ne buñ ko ñu fa taxawee rek dañuy lor loo xam ne ay garab yoo xam ne maanaam yaa ngi saxal garab dem di dëgg ci ya ngir ànd ak mbooloo dem di dëgg si dëgg si yeneen yoo xam ne dañoo war a meññi jóg hmm. nañ def bañ a def erreur boobu noonu muy maanaam toujours booy nekk ñun comme ça ñun ba si ñeneen ñu ñoo xam ne démb sax lañ bëre ah si làmb lañu yaakaar hmm. te ñoom ku si mel ni ñu ngi jaaree père père bi gaañu père Mbaye Gueye gis nañ ni moom xeexal làmb xeexal nitu làmb tax na ba am na ki mu doon bëreeg si paa yi xam nga histoire tamit ñun dañuy wax mais tamit dañuy fàtte ak mooy loolu mais am na paa bi mu jàppalante woon nii ñuy leetoo mu ne ko jox nañ la sa reliquat mu ne mu ne déedéet mu arrêté làmb ji ne bu leen ko joxul reliquat du ñu bëre te bañ ko joxee reliquat am ba mu ñëwee dafa daf ko duma kooku daan ko kon cela veut dire que ni ñun ñëpp ñoo for ndax yow ñaanoo yàlla ëllëg yow man may génn ci làmb kii taxawal di ma ketal. Hmm. loolu noonu dafa war a deñ quoi xam nga lu tax dafa war a dañ amoon na fi lu ñu dal waruñu dalaat ñoom Gris Bordeaux ñoom dañoo war a xam ne si xeex boobu lañu nekk. réeroo bi ñu am ak euh, suñu président bi nii nu mu tudd jàppale ma si tur bi ki ñu fal li association des jeunes lutteurs. Kona Kona. Hmm. mais si ñoom la boxoon mais am na lu ko metti am na lu muy wax nañ ko woo ñu toog ñu waxtaan. parce que président les jeunes lutteurs. waaw président des jeunes lutteurs mën na ñàkk mën na doon sax parce que benn président moo fi am muy Gris Bordeaux. Mm-hmm. benn président sax waa am na. waaw moo war a am parce que benn structure la boo xam ne làmb la ñu wax. Mm-hmm. war ñu am ay pàcc am ay pàcc dara jaru ko fi. nañ leen jiital mais si kaw ñoom ñu teg ñu si yoon wala ñoom bu ñu mënul jiital ñu jiital ko naa parce que il e bien exprimé bu waxee da xam ne ni tey wax te tamit nekkul mooy lool mais VIP bi bu leen di joxañ di leen joxañ ñoom tamit nanguwuñu wax day mel ni que tamit leeral quoi leeral dafa yomb. am fasaaxa leeral gars yi comprendre. dafa yomb te defuñu ko. mais ay waxee ñoom ñu génn leeral. ñoom ñu génn leeral wala ñu woo leen ne leen kat làmb ñoo ko bokk bu ñu defee nii ak nii day ñaaw quoi xam nga nañ toog ñu waxtaan xool nañ koy parce que tamit via yi ñii ñii ñuy topp seen ginnaaw bëgg suuxal làmb dañuy dem après ay France nga leen di dégg ak yooyu dañuy dund seen vie ñun fii lañ dëgg ah mënuñu daw am nañ fi ay bàjjan am nañ fi ñii ñii ñëpp ñu gis ñii ne ay si nguur gi lañ kenn amu fi dara. seen mbokk yi xoolal boot dinañ leen almadi la ñuy dëkk wala seen benn coin xam nga ñun nag ñun bi ñu génnee ñu topp suñu ginnaaw macha allah mooy loolu kon ñun mënuñu daw dem feneen fu ñu dàqal fii quoi fii lañ am kon suñu réew ñoo ko mën a defar ci kaw loolu bu leen benn VIP di leen góor si maanaam li ñu leen defal nit bu lay defal di la defal bu yàggee mu moom sa làmmiñ te loolu mën na ñàkk nañ xool jeunes lutteurs yi nekk si suuf luy seen intérêt làmb muy intérêt public ñu doxal ko quoi affaire bi naaj ñu ngi jégal si wax ju bëri. waaw waaye de. waa li mu wax man am na loo xam ne ko siy corriger am na ko si nangul man mbër laa mbër bu ndaw laa quoi melagu ma dara waaye pour man ñaari association man d'accord ma ci quoi. d'accord ah, waaw pour man quoi pour man sama sama nekk sama xel laay wax. àdduna mm-hmm. lii la cee bokk ndaw la cee bokk jigéen la cee bokk soo bëggee jëm kanam. Mm-hmm. loolu la mag ñu wax quoi ñoom mobile. ak ñoom ki nga ki mu tudd léegi. Kona seen association boobu ma nanguma ko. d' accord non non xam nga sax d' ma ci. déedéet Gris Bordeaux suñu mag la. ñoom mm. Balla Gaye ñoom Modou ñëpp suñuy mag lañ. te ñoom dañuy puus xajal ñun ñu ñëw. Mm-hmm. te ñun balaa ñoo si ñoom am na ñeneen ñu stop ñoom ñoo ñëw ba pare n' est ce pas. pourquoi ñun ndaw yëpp mu ñoo dajaloo dem ba si ñoom xaw ma nag defoon mm. defoon nañ ko sax ba am ñoom lu ñu fa jëlee ah, demaatal su yàggee ñoo xam ne yow mii li ngay li ngay xeex am am nga si looy xeex quoi waaye tey ñii far fii ñii far fee nangu ma quoi dañuy dem wax ak Gris Bordeaux ne ko ñun lii moo ñu naxar naxari après ñu toog déglu version Gris Bordeaux nga xool après moom lu mu lay wax su la waxee loolu nga jug fa dem ci Balla Gaye mais est-ce que est-ce que est-ce que jug nañ pour dem ci ñooñu. wala est-ce que Gris nangu na recevoir leen. waxtaan ak ñoom non déggoo ma de Gris Bordeaux rek du fi bokkul si association bi. dañ ko jiital ne ko président yow war a dogal. Mm-hmm. am de di nga am ay conseil ci ginnaaw. soo demee ci moom waxoon nangu laa dégg nga dem ci Balla Gaye Balla Gaye nangu laa dégg demal ci Modou Lo. Eumeu Sène a ngi fi Bombardier a fi te Bombardier dama dama ko naw ci kàddoom chaque jour li muy wax man dama ko naw quoi. dëgg la musuma jox loxo musuma ko jox loxo te dama ñaan yàlla mel ni ma dama ko naw ci kàddoom aussi moom Modou Lo. comprendre nga. waaye pourquoi pas ñoom mënuñoo dem loolu lii ñuy xeex nii barki alxuraan sama gis-gis bu gàtt quoi. Mhm. non si jafe-jafe lay mujjee quoi. yokku làmb daal non non gisuma yokku yokku làmb Gris Bordeaux fii mobile fii ñii fii ñii fii non non pour lan lamb ñun avant ñu siy dugg amul benn association te dafa doxoon. Mhm. dafa doxoon waaye loo gis tamit day am njiit. comprendre nga ñaata CNG nga mos a gis du benn CNG nga fi am. benn rek tamit ñii mënuñoo dem euh, ñu ndaw ñi mënuñoo dem si mag ñi. lu mën a nekk la. yaa ngi may dégg ndaw day war a dem ci mag ngir mën a xam ëllëg. Mhm. waaye yow ndaw rek nga bëgg a jiit sa bopp. ah man moom maa ngi man man mbër laa quoi. kon yow daal bokkuloo fenn bokkoo ci jeune lutteur. non man man tey bokkuma fenn waaye su ma doon dem bay boole sama bopp man hmm. su ma doon dem bay boole sama bopp si Gris Bordeaux laa su ma demee ci moom dinaa ko wax li ma naxari wax ko li ma metti est ce que xam te xam naa li ma naxari li ma metti moo metti kii moo metti keneen ak keneen waaye association bii nii ñu def tey seen wax jooju dégg naa am na lu mu jur. lu mu jur. waaw ma de dégg guma ko. Euh, ñaari président yi président bu ndaw beeg bu mag bi dégg naa xam nga ñu ngi si am ay waxtaan waxtaan yoo xam te ne ñu ñun ñëpp ñoo bokk tey man doom du du ma bokk si nga jox ma avance ma la ma la koy jox te sama yaay nekk fi sama nekk fi am na yéen yoo xamante ni man d'accord ma leen di wax rek en tant que ndaw xasuma si kenn quoi. Hmm. man li nekk suma xel tey tey ñaan rek laay wax quoi waaw tey Gris Bordeaux chaque jour communication na ci boole. mbëri ndaw yi quoi. man ma xaw ma fu mu dëkk su ma xamoon fu mu dëkk sañ naa sol sama daal dem ba foofu waaye xaw ma fu mu dëkk xaw ma fu mu dëkk yoruma numéro ah, xaw ma ay mbokkam en tant que mbër la ma koy séance télé bi ah man moom géej laa gëm quoi. mais boo comprendre bii bi far force si Gris Bordeaux nga bokk far force si kii nga bokk nu mu tudd. Kona xam nga lu tax. ñoo bokk même droit yi ñuy fay si làmb même CNG li ñuy dagg dix pour cent nii. ñoo ko bokk kon où est la différence. ñoo bokk ni ñu jëndee licence. waaw où est la différence du foofu quoi. xam nga la mooy différence mu daan doon benn loo loolu du intérêt lamb maanaam. ah man li ma dégg man man li xam naa Marème Faye man li ma dégg Gris Bordeaux du xeex. jéem dëbb seen linjaa xam nga jaar jaar jaar jaar si kii ay koppar génn nga yëkkati. quatre avance jox ko benn nit te booy bi amagul kër arto amagul kër yow amagul kër keneen ak keneen amagul kër loolu corruption la loolu du yoon. man li ma dégg Gris Bordeaux di xeex Balla Gaye koy jël. isa ma dégg dafa neex ñëpp ko soxla. li ma dégg Gris ah. Bordeaux di xeex quoi man. dañu war a xalaat booy yi booy yi booy yi daan topp seen ginnaaw di daw yow toujours noonu nga war a xoolee booy mi topp sa ginnaaw di daw non booy boobu topp sa ginnaaw daw am na lu mu bëgg am na lu war a nekk si ginnaaw moom tamit daa bàyyi lépp ñëw topp la ndax benn cofeel ba dem ba bëgg si làmb dem di takk ngemb kooku tamit bëgg nga ba muy dugg si làmb bu doon yow daf la fekk maanaam yow ngay dund benn benn benn benn benn kii bu amul bu amul avenir quoi noo du si dugg mais gis na ni yow yaa ngi teral sa papa di teral sa yaay di yóbbu kii màkka di dimbali ku mënul moom mu ne kat dama war a mel ni Balla looloo taxoon mu dugg si. tax taxoon nga duggu si loolu tax keneen dugg si ñu bëgg a suñu yaay mais bu ñu bëggee di jël jël beru feene man sama patron sama papa mooy Aziz Ndiaye kii sama kii mooy kii ñu daal def coalition dem a gis kii koppar génn nga yëkkati carte avance jox ki yeneen nan la ñuy def. mbër nanguma xamul tax man nanguma foofu tey muy yow am nga mbër bu mag sa écurie man aussi am naa mbër bu mag. non non exemple non fréquenté sax mbër bu mag. non sa écurie laa waxuma fréquenté. non dégg fréquenté bi dem entraînement. non da nga may déglu laa sa écurie. doo te defil déjà. Euh, kayit ak ra moom. waa kay kon kon fa laay waxee comprendre am nga tëdd fil am naa tëdd fil ñoom dañuy am combat ñu fay leen xaalis sponsor sol blouson te duñ la si jox. non non déglu ma rek. loolu problème mu Sénégal déglu ma. waaw déglu ma problème mu Sénégal ma daane problème d'organisation. waaw moom mooy fa laay waxee te boobu yow xaalis sponsor boobu yow da nga ciy am cër te moom da koy jël dugal ci poosam est-ce que amee dégg bu baax kon tey man wéeru ci Balla Gaye ma ci Gris Bordeaux wéeru ma ci Marley wóolu ma ci kenn man sama bopp laa wéeru ndax li may may maa ñax. Mm-hmm. tu vois li may may maa ñax kon tey xam nga suñu wéeroo ni kii jël na carte avance. wala kii jël na deux avance ñu bëgg wax si ñooñ rek débat bi day gën a gudd. ñoo ngi may signaler temps bi. non débat bi xajul fii xam nga tax débat bi xajul fii. yow wéeru woo ci kenn si ñoom. mais ñoom defu li ñu doon defuñu ko seen bopp dañ leen ko def est-ce que yaa ngi comprendre maanaam nit ni tey garabam wante nit ni tey posonam fii kuñ kuñ fi kuñ fi doon jàmbaar dañ la jàppale. est-ce que yaa ñoom dañ leen jàppale ba ñu yegg si fii dañoo war a xool ñoom leen rek la ñu mën a jàppale défendre intérêt yi làmb ba ku dugg ci làmb kat ñu bañ la xoolee bëtukat kii day torox noonu lañu war a téewee làmb ji muy que Kona muy que Gris Bordeaux bu ñu xamul seen rôle dañ leen koy wax intérêt yi làmb lañ war a dox man foofu lay waxee quoi parce que ñun ñëpp bëgg nañ bu ñuy génn si làmb ñu ñuy xool Ardo ah, lamb fi mu toll nii moom benn tànk lay benn tànk lay doxee. Mhm. defe naa ne débat bi yëpp xaju fi ndax ñoo muy signalé sànq ba léegi temps bi jeex na. Mhm. Répa ñu bàyyi la nga tàggatoo gërëm ñi nga war a gërëm moom tamit mu def ko ñu ñaanal ba beneen incha allah. waaw di santaan ñëpp te aussi di jégalu ñëpp. Mhm. su fekkee wax nañ fi benn kàddu boo xamante ni xam bu ñagas la wala benn kàddu boo xam ne moo ngi déranger te aussi ñoo ngi siy bu baax bëgg lu defar moo tax xam ñu di sant waa Géejawaay yëpp yëpp comprendre nga di sant aussi waa Gambie. Hmm. yaa ma di sant xama sunu dëkk laa ñaar comprendre nga di dem Taïba Ndiaye Taïba Mbaye Nomor xam nga Kër Malle di sant tamit tulu Kajoor bépp bàyyiwuñ kenn na dañoo bokk ci bii bokk ci bee quoi Kajoor ak Bawol yëpp bokk nañ ci quoi. comprendre nga aussi di sant waa Guèye waaye bàyyiwuma kenn di sant sama booy yi may àndal comprendre nga ku ci mel ni Gallo mu ndong président fan di sant ñëpp di ñaanal maman Ngom ah maman Ngom sëyam bi yàlla na si yàlla def barke am si njaboot yu barkeel sant kenn a ñoom Ndeye Diop xam nga ñoom ñëpp daal siyaar ñëpp maa ngi siyaar Aliou Thiam ah bu baax. waaw maa ngi siyaar Aliou Thiam bu baax baax da jàpp. Ibra Fall ah séeri ma mami ah maa ngi koy sant bu baax di sant aussi sama patron fu muy liggéey muy maam Cheikh ku bëgg lal bu baax rek xam nga si atelier bi. Hmm. comprendre maa ngi jégalu nag si joxe numéro yi. waaw xam ku bëgg lal bu baax rek xam nga foofu numéro mooy 68 13 ans waaw maam Cheikh ministre man fa laay liggéey aussi damay jaay jën maa ngi nuyu waa participation yi. waaw amul problème ragaluñ loolu. Faare ma ñu ngi jégalu bu baax. di siyaar sama jarbaat bi mu ko quoi mi Alsaan. Hmm. su ma jarbaat la fu fépp fu ma bëgg a dem dafay dem. di siyaar sama mag awa suñu waa kër sama yaay xam nga sama jigéen màgget ñëpp bàyyiwuma kenn ak suma mag Marley di nga ñaanal naa xam nga di ko masawu dem aussi ak mbër yëpp doon bëre di leen masawu ne xam affaire yi métti na waaye tamit xam nga lu métti. waaw nañ muñ rek xam nga léegi tey affaire incha allah. Mm-hmm. ah sant ah. waaw di jaajëfal ñëpp rek ñi sonn si Ardo ñëpp ku lim juum lu mënut ñàkk faw mu am ku si mel ni Omar mi ma àndal o di waa golf gépp ku si mel ni Daniel ji waa diaspora bi bu ma nee wax naa ñëpp bu ma nee Omar Ndiaye bu Garga Mbossé wax naa ñëpp waaw ñoom mbaalo xam nga alima Jibi Kayta xam nga. ñëpp daal ay ñoom euh, Afia xam nga Daabo Afia Daniel di xam nga dañuy sonn ci man te nekk fële am na ñoo xam ne sax mosuñoo gisante dañuy seen xéwal di ma ko jox di xool ci lan laa nekk di veillé sama santé ak lépp waaw xaadim Amar May Njaay tey moom duma la fàtte ku ci mel ni sama bàjjen Aminta di di jaaree sama maam aji maam aji borom këram dafa ñibbi àjjana koy ñaanal fi mu jëm gënee gënal ko fuuf fi mu jógee daal ñaanal ñëpp ñu génn eh, àdduna waaw di masawu ñëpp daal di ñaanal yàlla corona bi jóge fi gars yi seen activité waaw di gërëm waa mbuur dañuy sonn ci man ku ci mel ni ay ñoom pa bugu tan kumba tata mami waaw ñëpp rek waa Thiès tamit bàyyiwuma kenn sama yaay ak waa kër gi ñëpp tata asu xam nga waa MC wërëb ñëpp daal xam nga waaw bu ma limee ay ñoom tama daabo ndaama sama papa ndaama Cheikh Sarr xam nga waaw ñëpp koñ ba bàyyiwuma kenn ñu ngi jégalu te xam ne temps bi moo ko mayal bi mais yéen ñëpp si biir xool bi daal waaw. waaw maa ngi sant ki ma ñawal lii ah. ki ma ñawal lii muy ma bëgg nga ki ma ñawal Fallou Thiam ah. maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm xam nga moom moo ñawal jox li ma sol comprendre nga di nuyu Ibou Ndiaye Séeri Gaas Badou Dramé ak ministre Amadou Xot ministre Amadou Xot maa ngi koy sant bu baax a baax mu ngi si jàpp aussi bu baax. waaw eh. Pape Niang le maire Pape ñaŋ waaw gis nañ bu baax. li ngay defal waxuma la ardo mais jeunesse bi ak képp ku ànd ak ardo ku ànd ak ardo bëgg nga ko ku léew daal macha allah yow yàlla na la yàlla yokk ba nga yëg ko maam Ibra Ba Cheikh Omar mbay waaw kooku du ma xam nga ko bu baax Cheikh Omar Mbaye nit ku baax sama tawat bi amul lum si dajut day yëkkati ay médecin bu boppam Papa Ndiaga waaw Waly ñoom ñëpp maa ngi leen gërëm di gërëm Alima bu Lat Alima bu Lat Diop gis nañ bu baax waaw loo mën ak loo mënut lépp <laughs> waaw loo mën ak loo mënut lépp gis nañ ko si Ardo mais ñu ngi lay ñaan yàlla yokk la te Lat Diop na la teg sa place waaw ndax yow jar nga lu nekk ndax gis nañ ni koy sonnalee Alima jërëjëf mënul ñàkk ndax mu ndaw dafa metti ñi ciy jàpp dañuy bari te li leen fay daanaka matul dara bu leen ko joxee mën naa ne balaa moom ñaari fan xaalis ba jeex ñi ñuy lim ñëpp dañ ciy jàpp ñii ci wàllum entraînement ñii ci wàllum ñii ci wàllum solu ci wàllum gàllaaj ba tax na saa bu fi ñëwee leen di bàyyi ñu gërëm di jaajëfal sama cameraman du ñaaw li Adama Kaggu. <laughs> <laughs> maa ngi gërëm Maguette Ndame bu baax a baax moom tamit da ciy jàpp. du ci jàpp <laughs> di leen jox dig daje ci wasaare làmb jàmmaarloo beneen yoon jaa ngeen jëf.